लेंगे Guys, nandaafe nandaafe. mais. yaa dirigé Koba. non maa dirigé Koba yi mënul ñàkk. Koba Koba an sama ndaw daal. non gars yi tey dañu dajale lu bari tey. an sama ndaw daal ah. mais bëgg ci yow quoi. waaw mais c'est la famille. waaw waaw gars yëpp teew nañu ah. waaw waaw kontaan naa waaw di bëggee tey nag tey bis mbégte la. waaw waaw moo tax tey. waaw waaw ndax li mu yow wala mu doomu jigéen macha allah yàlla na ko barkeel tey bés bi Wally Seck ñaan ay waajuram fekkee njëriñam askan bi yëpp ah di sant di leen sant bu baax a baax am bëgguma woon woon xam nga woon mënumaa xew waaw ah, mësumaa xew sama laay fii ñëw je préfère li may def ci ay côté ay tudd ak yooyu mu doon lu kalmu rek xam nga ñu def ko ni ko sama daan defee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 donc euh, gis naa public bi ni ñu ko apprécier mais loolu moom euh, mi ngi suñu kanam. est-il possible mu ñëw. mi ngi suñu kanam.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 jërëjëf ñu ngi leen di gërëm di sant bu baax sax jërëjëf merci beaucoup. maa ngi leen di fay yaboo yi. alors ñu fekk ma. ak mbégte ak fier di ñaanal nag sama doom ji yàlla na màgg ba am ndey bàyyi ba teral sama sama waaju baax ji ak yaayam teral sama sama sama yaaju baax ji di nga xam ne mooy Kinde Diouf ci kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. d'accord ci soxna Waly Ballago Seck euh, ki nga xam waaw jigéen ju baax jigéen ju am sutura jigéen ju mën a muñ jigéen ju bëgg ay xaritu jëkkëram. yàlla na ko yàlla defal jàmm lu mu fi am rek mérito na ko ndax da ko fee mhm. yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko wér gudd fan yàlla bu ko dara umb ci ay doomam ci kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mais digganteem ak hmm. déggoo ma ne la jigéen ju bëgg ay xaritu jëkkëram boo déggee ma ne la jigéen ju bëgg ay xaritu jëkkëram mën na toppatoo ay xaritu jëkkëram ay xaritu jëkkëram ku ci duggu kër ga doo xiif doo mar kon donc c'est à ñu ko ñaanal yàlla mooy yàlla ko yàlla lafal cat te cat yàgg fi loolu te na fekk ay njëriñu doomam ci kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. li nga xamante ni attan na ko ci wàllu coow euh, tey bu coow jugee ci réew mi ñëpp di wax Wally Ballago Seck yéen ñi ko jege Soxna Aïdara ñu ko jugee. waaw c'est normal c'est normal euh, moo opté nekk jabaru waykat surtout nga nekk jabaru koo xamante ni mooy number one ci cim réew. c'est normal il faut mu forger boppam te forger na boppam parce que xamoon na ne bu nekkee jabar Wally lii yëpp na ko ci fekk parce que coow dina topp lu ne dina ko dégg te yàlla dimbali nañu ba mu ngi ko gérer te yàlla na ko yàgg a ci kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, na am mës na am ci diggante waaye loolu mënut ñàkk. couple boo gis day am day mais attends booy yow tey bu ma doon dund ak yow sax nga may da nga may fiir c'est normal fi ñëpp fiir muy góor muy jigéen c'est normal c'est normal. d'accord d'accord alors Amady Badiane ci kaw seen Wally Ballago Seck parce que ñu bëri euh, dañuy wax lan mooy rôle Amady Badiane ci kaw seen wàll Wally Ballago Seck gis nañu léegi ni nga koy encadré. tey boo ñu doon fàttali rôle euh, rôle Amady Badiane. waaw sama rôle sama rôle lépp la lépp. ah bon tout poste yëpp yëpp laa ko maa koy occupé ah. mais su ma rôle lépp la en tout cas na rafet na lépp di rafet rek ah. waaw man foofu la nekk. Ah. fi la teg Ramadane tegu fa ñu bëri ba tax na am na ñu bëri dañ ciy gis des fois seen bopp est du jur fiiraange ci biir groupe bi ndax ni la def ak fi la teg Wally Ballago Seck mën nañ ne lépp loo xamante ne xewle na ko yow la ciy jiital. waaw Wally fi ma teg fa la teg mais lépp dafa nekk ci njëlbeen bi. dañoo tàmbali ñu nekk ñaari personne mu metti lool ñu géré mu metti ñu jaar fu nekk nag dégglu ne sa xaañ xaañ nañ ñu xeer da sànni nañ ñu toj nañ suñu suñuy suñuy vitre oto lu ne daj nañ mu metti lool te bi ñuy tàmbali ñu bëri dañu woon déet ñu bëri dañu woon waaye nag sant yàlla ba ba bi ñëpp ne waaw kon longu loolu fi à saluer yaa ngi dégg loolu ca ca njëlbeen